mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ko kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme ñu ngi am mbégte bu amul àpp saa su ne ci àndoo ak yéen ci ay jotaay mais ci dalal képp koo xam ni ndaw la mais aussi taxawaayam ràññeeku ak ci domaine bu ñu ko mënti xam euh, tey ñu toog ak koo xam ni bu ñu nee Cheikh Konté certainement xel yëpp ci li muy dem muy Cheikh borom produit yu baax yi nga xamee ni xam nañ ko ci lépp loo xam ne rek ay garab la yu nekk ci réew mi mu liggéey ko liggéey bu mucc ay boo xam ne askan wi dinañ ko jëfandikoo euh, ci noonu tamit la ko yàlla may lool doonte ne ndaw la ci li nga xam ne moom la ñuy wax euh, xam-xamul waar di li waral tey congaan di am mbégte euh, Serigne Cheikh Kon tey alliance Cheikh borom produit yu baax yi may am mbégte saa su ne ci am ak jotaay maa ngi lay gërëm aussi vraiment ci disponibilité bi di la xam ne mbégte la ci ma fas yéene am ak yow partage tey. waaw salaamaaleykum congaan maa ngi lay nuyu. di la jox sa wàccuwaay di nuyu équipe bi nga àndal yëpp macha allah di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ñuy seetaan moo xam si Sénégal ak ci bitim réew macha allah di nuyu ñi may jëflanteel comme ni ma ko faral di waxee samay client ak samay cliente yu nekk ci Sénégal Gambie Mauritanie Amérique Espagne Italie France Canada Belgique partout dans le monde UK Sweden xam nga Chine Suisse macha allah ñi ngi fépp di ay nit ñi ñuul ak ay nit ñu weex ñoo xamante ni ci xam-xamu garab ak faj. ak wàllum ñaan yàlla ak yeneen ak yeneen macha allah aajo bi fi waa indi daal incha allah rabbi dinañ ko ko fajal si kàttun yàlla ak mbaaxam ak foo manti nekk ak aajo bi nu mu manti mel mu soobee yàlla daal waaw très bien alors la xam nga nag di ma baal tey produit yu baax yi moom ñu bari ci lañ la gën a xamee mais dafa am loo xam ni euh, ñu bari xëy na jaadu na xam ko ci yow xam-xamul macha allah yàlla may la ci am ci loo xam ne lu am solo ci dundu doomu aadama la ma bëgg nga wax ñu si tuuti Serigne Cheikh seet ban avantage la amal nit ki wante tamit lan lay jëriñ ci dundu doom adama bi aw seet de avantage yu amal doomu aadama yi bari na trop macha allah euh, seet moom xëy na ñu bari ñi ngi réer ay doomu aadama si seet man benn jigéen ndeysaan dafa ñëw si man ne ma ma seetal ko si digganteem ak euh, jëkkëram muy borom këram ma seetal ko ne ko seen diggante bi de diggante bu ànd la lool macha allah te jigéen bi sax borom wërsëg la. ndeysaan mu demoon si ab sëriñ avant muy ñëw si man sëriñ bi ne ko yow kat sa borom kër bii de baaxut ci yow da lay tëj de nangam ak nangam yàq xel mi ba femme bi dafa dem ci borom kër bi naan ko bàyyi ma bàyyi ma fase ma fase ma borom kër bi bañ koo fase xam naa nag borom kër bi du ñàkk dafa gis ne xëy na li kii bi am euh, wërsëg da ciy gis boppam moo tax ak yooyu bi femme bi ñëwee ci man ma seetal ko ne ko sa borom kër bi de ku la wax dalay dalay tapale ko sa fukki loxo ak juróom macha allah nga rek parce que am na gars yi dañuy seete yoo xamante ne nii seet gi wérut te téere dañ koy jaay ci marché yi te seet ga sa nekk wérut léegi nag yenn gars yi yooyu la ñuy am di si seetalee yenn doomu aadama si wàllub sëy wala diggante wala nangam ak nangam fekk loola wérut gis nga xam-xam dëgg doo ko fekk ay ay ay mbedd yi ni surtout xam-xamu baati nag yooyu mm-hmm. yooyu gars yi bëri moom la ñu yor di ko seetal si ay tiktok ak ay nangam nangam fekk seet googu ñu seetale wérut ñu bari dañuy day da nit ki du am xam-xamam yaakaar na wala yenn xam-xam di ko pasaare si internet ak yooyu ñu bëri dañuy jël sax ay affaire di ko tasaare fekk dañuy téye sirru bi exemple dañ lay junj nii wala ñu wax la lii boo ko defee nangam ak nangam lii boo ko dafa baax fekk joxuñ la dëggantaan li mu war a do li ko war a doxal dëggantaan comprendre nga comme mi ngi mën ne faa ñu téye ñaari ci des wala kii yéeg yooyu moo tax daal waaye lu mu ci mënti demee seet moom yàlla may nañu si ba boo ñu waxee. Cheikh ngir ngir mbokk yi gën a comprendre Cheikh euh, naka lay seetee ak nit ki ki nga xamee ni bëgg na jëflante ak ci mbiru seet fan fan lay jaar ak yow. waaw fu muy jaar man man nga ma woo bu fekkee ah, dama am jot soo ma woowee jërul ngay coupé. bu fekkee ma ne waaw man 10 000 nga may yónnee ma setal la boo ko amul ba ma woo gratuite laa ko doon def waaye da nga seetal ñu bari nga gis leen ñu kontaan ñu bëgg la boole seen doom ak seen jarbaat ak xam nga ku ñu xam ñu boole moo tax ma xam ne lii nii jëmul kër Sénégal ba la wanee lu yomb ñu bëgg la kii moo tax léegi ku amul 10 000 du ma la setal damay dugal a 10 ma seetal la 10 nag waaw mën naa ko maye du dara ci man mm. waaye xam nga rek Sénégal moo toll foofu comprendre nga waaye euh, boo ma dugalee sa su ma jàpput parce que dama la wax lu le balaa nga maa dugal sa xaalis woo ma ba jot ma pare parce que dama naqare jot des hmm. man nga ma dugal sa xaalis parce ma ma jot nga ne ah kii kat dama koy sama xaalis mënu ma pour wàllum seet mais la bu fekkee maay téléphone man maay téléphone ma ko bu fekkee yor naa téléphone bi su boobaa yow man jërut may coupé comprendre nga hmm. ma seetal la fi nga toog ak si moment bi amul na ay dama lay fanaan fanaanoo kenn ba ma seetee wax sa turu ak sa turu sa tur bi ñu la tuddee sa turu ngénte turu ngénte laa bëgg nga jox ma ko ak sa turu yaay bi la jur turam ak santam turam dëgg man tur dëggantaan seetewu ma ay surnom ñu tuddee la Moustapha nga ay papa laa tudd man seet exemple seetewu ma noonu comprendre sa tour dëggantaan tour bi ñu la tuddee sa tour dëggantaan rayal la xar bu dee jullit nga man tour boobu laa soxla ba lu ñu la si wax du deñ macha allah loolu ay rawaan lañ koy seete xam nga tur boo gis dafa am ay rawxaan tamit xam nga muy man euh, sama tur boo ko attan nga gis ay rawxaan yow tamit parey keneen ki seetaan tamit même chose the same thing xam nga loolu nag beneen xam-xam la boo xamante ne si ilmul nujum lay lay dox ak ilmul xuruuf ilmul adat yeneen yi nag ak euh, seet yoo xamante ni seetu ramli la te lu te lu wér te wóor la macha allah ba du lu ñu ci wax doomu aadama ba du dañ buñ la génneloon fii ay yoo xamante ci wàllu seet da naan kii moom seet rek la man fekk am na leneen loo xamante ni moo gën a tuuti ci lu mu xam ci wàllu seet ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga xam bi daal mi ngi fi macha allah ba si ku feebar feebar sax bëgg faju mën nañ laa faj ak feebar bi nu mu mënti demee ci doomu aadama bi waaye daal seet daal lu ñu la si wax takku ko téere moo xam seet ci ku nit seet nag dafa bëri façon waaw seet dafa bëri ay façon nit ki bu ñëwee bu bëggee seetlu kat danaan dama bëgg a seetlu man bu fekkee sa seet sa général en général nga bëgg sa mbir sa biteeg sa lépp nga bëgg a seet da ngay wax hmm. ñu seetal loolu lépp bu fekkee nag benn aajo rek nga am exemple ngay ut kayit exemple hmm. da ngay seet loolu dafa am seet spécialam bu dee kuy jënd kër dafa am seet spécialam bu dee leneen wala diggante góor ak jigéen dafa seet dafa am seet spécialam comme ñaar ñuy bëggante nga bëgg ko ba wala avant avant nga koo takk pour seen diggante ba xam baax na wala baaxul xam am na ñoo xamante ni yàlla xam ne ñi ngi dem si ay ay nit ñu seetal leen loo xamante ni avant ñoo takk soxna la ñu ne leen seet bi baax na fekk wóor na yàlla seet bi dara baaxu si parce que li ma la wax sànq si njëlbeen bi rek am na ñoo xamante ne téere yi jaay si marché bi lañ dem di ko jënd di ko seet te téere yooyu xam-xam ba sa nekk dafa wérut wallaay la seen duy caaxaan te li ma lay wax lu fu leer laa ko teg te macha allah daal xam-xam rek moo wóor ñun nag làmbatuwuñ li ñuy def te pasar pasare wuñ tamit suñu image macha allah daal ba macha daal xam naa bu ñu continuer rek dina gën a kii daal. très bien alors muy lu am solo ci dundu doomu aadama bi li nga xamee ni mooy seet wante euh, dafa mel ni Cheikh bu ma déggee see wax seet bu normalul maanaam seet boo xam ne wérul xëy na mën na jural nit ki ay gàllankoor yoo xam ne xëy na mën na ko bañ a xam ne mm-hmm. bu bari mooy li ma la wax sànq si njëlbeen rek jigéen boobu ma seetaloon ay jamono yàggul dara mën naa wax tur tur dëkk bi mu dëkk waaye jaru ko yàlla xam na bi mu ne ma seetal ma nangam ma seetal ko ba pare mu ne ma li nga wax ni dama ko wax li nekk ci moom ba pare ñaari seet yu bokk laa seetal xam nga eh, lépp laa ko ko waxandoo si appel bi ma wax li nekk ci moom lépp tout ba pare waxaat ko loo xamante ni si diggante ñoom ñaa ak borom këram loo xamante ne ni bi ma ko si waxee loolu nag mu xamal ne ma am na feneen fu mu doon seetloo ñu ne ko yow eh, sa borom kër moo la tëj ma ne ko ko la wax loolu da wax ay tappale seen borom sa sa diggante sa diggante sa borom kër lu baax rek a si nekk te ànd na it amoo leen benn jafe-jafe bu nekk ci sëy bi wallahi la mu ne ma loolu am na waaye man nangam ak nangam damaa dem ci sëriñ mu sama xam nga xam nga loolu rek gàllankoor la nga gàllan te ñu am na ñoo xam tas ci ay sëy jàmbu ci loolu tas nañ ci ay sëy doomu aadama ci loolu am ñoo xamante ni sax sëy yu amagul tas nañ yàq nañ ciy sëy fekk la waroon am la ñu yàq ko ne la yeeg lii amul kat fekk loolu lu waroon am la xam nga waaye xam nga rek gars yi dañoo bari te bokkul man xam-xam la ma yàlla may affaire yi abiyaas la rek xam nga bu buñ ko summi woon sol costume tamit ab euh, xam-xam boobu day nekkaat si ñun buñ ko summi woon yëre bi tamit sol yëre sénégalais wala yére maillot Sénégal wala t-shirt xam-xam bi day nekk si ñun waaw loolu moom ilaa yow mi di nday ànd ak ñun macha allah waaye daal fii moom xam a fi nekk ku ñëw dina la jëriñ ci kàttanu yàlla eh bien alors Serigne Cheikh xam ne am na lool ci dundunu nit ki euh, muy gàllankoor yi bari na adduna bi métti na Sénégal jafe-jafe yi léeg mu bari ci nit ki ndax mën nga dikk ak ñun ci lan mooy njëriñu kaaraange wante tamit ki ko yitti yittewoo ngir jëflante ci ak yow lan nga ñu ci mën a wax waaw kaaraange dafa am solo lool ci doomu aadama bi kaaraange dafa bari ay façon nit kii moom boo nekkee ci yenn façon dëkk yi walla fu mu fu mu mën a nekk danga nga war aar sa bopp xam nga kaaraange nekkul lu dul ci exemple nit bëgg la def lu bon pour yàq sa àdduna ak yooyu. xam nga walla pour dëddale ak ñit ak nit xam nga yamul ci loolu kese kaaraange dafa bari façon kaaraange ci wàllu rab walla jinne yooyu yëpp am na. xam nga macha allah kaaraange ci wàllu leneen ak leneen dafa am dafa bari façon daal waaye lu mu ci mën ci doon am yoo xamante ni ku laal day loolu nag ci wàllu alxuraan lañ koy liggéey am ci tamit sunguf yoo xamante ni ku la laal moom day yàqu lu am sama dem te ñëw macha allah yeneen ñi tamit am na yoo xamante ni sunguf la ñuy jël xam nga bu fekkee nag ci wàllu rab lay demee loo xamante ni sunguf la ak yooyu xam nga kaaraange dafa bëri façon daal lu ñu ci doon wax émission mën nañ ko tënk si émission une heure de temps wàllu kaaraange moom mën nañoo tënk rek wax li ñuy wax waaye bu doon kaaraange rek spécial mën nañ ci wax débat a xamante ci une lay durer man sama xam-xam yëpp boo si jëm man naa si débat loo xamante ni une heure de lay durer moo tax waaye daal ku bëgg kaaraange incha allah rabbi am na ay ndomba yoo xamante ne dañ koy liggéey ci kaaraange même boo takkeen bu fekkee góor nga nga takk ndomba boobu juróom-ñaari gaw lay doon dañ koy ëwoo tisi boo xamante ne nii muuma moo ko doon sol maanaam yére boo xamante ne muuma moo ko doon sol ba ko nga am si daggetu yére bi nga ëwee ko ko ak boo xamante ne gumba moo ko doon sol nga am si daggetu yére bi ëwee ko ak koo xamante dafa génn àdduna ba pare macha allah seede yàlla ñu ngi noddu macha allah comprendre nga ko cangaay loolu euh, da ngay dagg si ki génn àdduna mooy perkaal bi nga boolekaa ñett yooyu leneen ni ñu koy kii nag alxuraan loo xamante ne ni ki koy aw sax du wax man su ma koy wax da ngay toog ma toog doo wax parce que boo waxee rek affaire bi day yàqu te ki koy aw tamit doo waxaale ak moom su ne la tàngooy fa rek loolu nga koy fay macha allah loolu xam nga xam-xam bu wérte wóor la loolu boo ko takkee ñi la bañ dañ lay bëgg far fos waaw kër goo ko takk moo xam fi ngay liggéeyee ñu bañ la dañ lay bëgg far fos wala ñu abal la loolu moom moo ci gën a tuuti yeneen yi nag ay ubbeeku la si biir laak yooyu waaw am nañ façon ubbeeku yoo xamante ni dafa laalaale ubbeeku ak yooyu mais kaaraange ku jéggi dayoo la boo yoroon lu bon wallaahi la duñ la arrêté di la jàpp nangam ak nangam waxuma nag nit ñi dañ def lu bon mais li si nekk si kaaraange dafa bari am nañ beneen façon it yoo xamante ni kaaraange la aussi euh, boo xamante ni pettaaw lay àndal hmm. euh, day ànd ak ñetti pettaaw ak sagar bu xonq loolu nag ñaari gaw la koy awee bu bokkut ak nomba bi ma boo ko takkee moom loolu dafa amaale tul si biir tul tulu fetal ak tulu euh, ndabal weñ daal ci gàttal ak fetal yooyu macha allah daal loolu it ak boo ko yoree accident moom doxo kii moom accident bi lu mu métti métti yàlla dina dimbali ci kàttanu yàlla nga mucc ci incha allahu rabbi waaw loolu moom kaaraange ma dafa bëri façon ci lu ñu très bien alors Serigne Cheikh wax nga ko bala maa dugg ci euh, génn ci kaaraange dugg ci li nga xam mooy tul ndax ñu bari ci askan wi rawatina ndaw ñi dina leen soxal euh, kaaraange ñu ko waxee mooy luy nit ki ci lépp loo xam ne xëy na jàpp nga ni nattu la wala bu ñu nee kaaraange lan la ñu bëgg wax liy protéger nit ki ci lam protéger nit ki wax naa la ko si biir wax maanaam li protéger nit ki maanaam si nit koo xam ne dafa am intention pour def la lu bon ak loo xamante ne nii comme exemple si xam nga léegi jamono daanaka sayaatin yi ñu ngi fépp daanaka te yàgg nañ ngelaw yeeg yëpp comprendre nga xam nga loolu lépp nit ki boo ko koy am na loo xam ne jat moom su ma ko ne la jiifee jaafee caméra sakka jinne sakata jinne fu la ndekki jinne si la ndekki jinne ba jat bi jeex daat koy fas xam nga jataat ba doon juróom-ñaar fas-fas loolu boo yoroon ay jinne yu lay yàqal boo ko takkee mënuñ ci yow tous te loolu kaaraange ma te kaaraange dafa bari ay façon ñu ngi fi ngi fi ay jat yu garaaw ak ay xam-xamu sunguf ak ay bind ak maas ak wàllu alxuraan fii moom boo bëggee dégg dëgg wax dëgg yàlla xam mi ngi fi kaaraange dafa bëri façon moo tax waaw macha allah daal mhm. kaaraange yi ngay liggéey dem na ci sax nit ki bu ko amee dina ko musal ci lépp luy loru jinn ak seytaane ak yu demee noonu wallaahi wallaahi wallaahi macha allah mhm. très bien alors yaa ngi ko doon wax sànq euh, tul aussi ñu bari dañu nii dañuy foog ni boo nee kaaraange rek euh, mooy tul lan nga ñu mën a wax aussi ci tul ki nga xam ne yitte woon na ko euh, xëy na mu yaakaar ko ci ki nga xam ne mooy Cheikh Konté waaw tul moom nomba yooyu dañ ko ci liggéey wax dëgg yàlla boo xamante ne ñaari gaw rek lay àndal bu dee boobu ñaari gaw kese lay àndal ak ay petaaw ak mosa bu xonq buñ ko aw nag mosa bi day feeñaale ñeenti yoon la ciy feeñ petaaw yi ñetti yoon lay doon nga aw ko loolu moom xam nga wax dëgg yàlla bu la neexee bul ñaan nooti fenn ci wàllu kaaraange barki Seydina Mohamed bu la neexee bul ñaanlawti fenn fenn si wàllu kaaraange waaye daal loo bëggoon ñu tënk ko rek mm. parce que sinon rek xam naa débat bi dina gudd te am na yeneen lu ñu war a waxtaane waaye macha allah daal en tout cas daal kaaraange yi daal bari na façon ba si sunguf ñu jox la ko nga sangoo ko am na sunguf yoo xamante ne nii boo ut garab gi ci àll yi bu la pël fekkee dalay daw parce que danger bi si nekk comprendre nga wàllu sunguf it am nañ ci kaaraange yu wér te yu jéggi dayoo loo xamante ne bu la bu ko xam mu romb la ngay xas kii bi <laughs> dana kii bagage la da lay romb bàyyi la fa parce que xam nañ garab googu garabu lan la garab googu boo jëloon ndox ndox exemple nga dem si benn supermarché jënd ndox bu bu la ndox bu la neex comprendre ndoxu kireen bu neex kenn dajjiw ko nga teg ko si wetu garab boo ñëwee boo ko boo avant nga ko tëjji boo ñëwee da ngay fekk mu changé boo naanee day wex xat xat xat xat te xam nga ndoxu kireen boo jënd dajjeegoo ko yow xam nga du boo ko tegee si garab googu nag nga may ko 15 minutes 30 minutes day wex xat xat xat xat pour wan ne xam nga rek yàlla ay mbiram dafa kéemaaña daal macha allah léegi na kéemaanu yàlla yooyu yàlla baaxee nañ ci ay mbir yu baree baree bari ñoo xam ñu ngi jëflante doomu aadama yi di faj ci seen an euh, seen nekkin ak seen dundi nag ci faj ak ci prothèse ak ci ubbeekoo ci fànn bu nekk ci yàlla xam-xam bi ñu may daal macha allah très bien yàlla may ko moom cheikh borom produit yu baax yi boo see produit yi li nga xamee ni mooy mbiru taalibe yàlla may na ko ci loolu muy xam-xamu lasrar euh, mu nekk léeg gàllankoor ci ñenn ñi koo xam ni xëy na kër gu mu dëkk day faral di tàkk wala nga jënd kër bees xëy na dëkk goo ko muy faral di tàkk ak yooyu ndax mën nga ñu wax ay saafara yoo xam ne mën nañ ko yaakaar ci Cheikh Konté yi ci ki nga xamee ni këram moom dafay faral di tàkk rek waaw kër guy tàkk yàlla may nañ ci xam-xam xam nga kër moom jinneeg rab ñoo koy mën a taal jinneeg rek nag ay xeet lañ comprendre nga waaye lu mu ci mën ci demee moo xam kër la moo xam place la moo xam lu mu mën muy tàkk ta tàkk taal boo xamante ni maanaam nekkulu lu moo koy taal bu fekkee kër la damay woo ña dëkk sa kër ga ñëpp ngeen raxasu ba xale buy doog a judd sax da ngay raxasu yow da ngay raxasu sa raxasit la seen loxo raxasitu loxo laa soxla lool nag xam na fu ma koy tuur léegi na leneen li ma lay digal ay saraxu ndabu laax nga def ko boo paree nga nga kii lép la si des maa ñëw jat li may jat ëf ko si ndox wala moo def ko si suuf wala leneen li ma xam xam nga samay mbir bopp daal macha allah xamante ne jinne buy taal moom dootu fa tege ci tàng si kàttanu yàlla day tuxu far fos loolu moom xam-xam bi yàlla may nañu ko te xale bu ndaw lañ li may faral di wax rek zalika fadlullah yuti man sa wala zul fadlul azim yàlla moo jël ay ngëneel jox ko ka neex xoolul xale xoolul mag xoolul góor xoolul jigéen yàlla nag daf ñu may xam-xam moo xam ci xam-xamu sunguf ak reen ak bind ak maas ak jat macha allah daal te sant yàlla ñun yoruñu ay jinne te ku yor jinne boo ñëwee ñu faj la ba nga ni cooc ku jinne di yàqale boo ñëwee ñu faj la ba nga ni cooc te yoruma ay jinne yoruma ko pour mu leer daal macha allah. leneen lu am solo ci dundu nit ki rawatina ndaw ñi muy li nga xamee ni léeg-léeg dañuy nekkee ay gàllankoor ñu naan leen danga nga war a dem wuti ubbeeku wooyeg wala da nga war a uti li nga xam ne moo lu lay permettre nga am ouverture lan nga ñu mën a wax ci ubbeeku yi nga xamee ni jàpp nga ni ndaw bu ne war na ko mën a am ak fi jamono toll. ubbeeku de yor naa si ay sunguf différent yàlla li ñu may dafa bari macha allah bu mu si jël compal la ko jox la ko boo ko laa lay gis ay résultat hmm. barke Seydina Muhammad am na sunguf soo xam ne du ko jox ko xam ne daf lay wor am na sunguf yoo xam ne du ma ko du ma ko jëflante ay client du ma ko jëflante kuy wore parce que boo ko utilisé alxames ak altine nga koy sangoo hmm. yi si des da nga koy raaya jaar xaalis lay àndal ak parfum hmm. barke Seydina Muhammad boo ko amee danga nga yéem ña nga xamante ne ñoo nekkoon ak yow wala ña la xamoon avant yooyu macha allah daal barke Seydina Muhammad kii di caméra xam nga rek <laughs> xam nga bëgguma dévoiler yenn affaire jàmbur ak yooyu waaye barke Seydina Muhammad ubbeeku moom taf-taf la te alal lay may waxuma ay ubbeeku bayre yi am na nag ay bayre jigéen ak yooyu du problème waaye ubbeeku pour am alal laa wax rayluwuma kenn it rayluwuma kenn pour mu leer yorumay jinne ubbi nit pour am alal loolu am naa suñu soo xamante ni su ma la ko joxee nga gis ay résultat macha allah ñun waxuñu si ay suñu coobare bakkan xam la ñuy wax te lu wér la te ñun xam nañ ci dara te suñuy at yaakaar naa xam nga am na xam bëgguñ di ko wax comme si que ay bàkkul yooyu xam nga ñun sant yàlla daal li ñuy liggéey xam nañ ko ñi ñuy jëflanteel it xam nañ ko macha allah daal xam nga xam la ba nit ki su bëggee ubbiku wala lu mu umu umu am na ñoo xamante ni ndeysaan seen tur boo ko adatoon rek xool seen i mbir da gis la yàlla xam doy na maritaal xam nga ay xam nga yeneen bagage la xam nga yeneen yi waaye lu ci mënti demee ubbi nit moom dafa bari façon waaye yor naa sunguf yoo xamante ne pour ubbi la nga am alal rek taf-taf la amul sax ma dem te ñëw am yoo xamante boo bëgg ubbi nit ki daan adat turam adat santam xool raw xaanam nangam ak nangam nga xam ki lan mooy gàllankooram nga xam lan la nga xam ban sarax lay laaj su boobaa boo génnee sarax yi jafal koy ñaan day gis ay résultat fas fat fat fat mm. comprendre nga mm. parce que sarax mooy décanté raw xaan loolu nag beneen façon ubbi ko la boo xamante ne sarax laa lay génne sa ñëpp nag bokkuñu sarax waaye am na ñoo xamante mën nañ nuroo sarax ak seen doom sax exemple wala ñu nuroo sarax ak ku dëkk Fuuta wala ku dëkk Fatick nga nuroo sarax ak ku dëkk Tambacounda exemple daal comme loolu la waaye lu mu ci mën demee ñun yàlla may nañu xam-xam boo xamante nit ki bu ñu jëlee turam dëggantaan ak santam adat ko ak turu yaayam dañuy mën a xam saraxam nan la bu fekkee dañ ko bëgg ñaanu ñaanlu ci wàllu wala nit ko am na ñoo xam ñi ngi feebar bay bëgg a dee mënuñoo wér ñiy feebar bay bëgg a dee mënuñoo wér fekk ndeysaan xamuñ seen sarax bi seen rawxaan di laaj moo tax boo demee hôpital ñu bari ñi nga xam ne ñi ngi feebar di faju bëgg bay bëgg a nu mënuñoo wér di jaabante ak ñeen ñi ngi jaabante va et vient ay rendez-vous yu dul jeex gisuñu tus xam nga fekk ñàkk xam seen raw seen raw xaan sarax bi ñuy laaj moo leen ko teg xam nga loolu nag beneen xam-xam ci ñëwee tamit dinañ ci émission bi dinañ ko jeexal waaye ñu tënk ko rek mais wax la dëgg yàlla pour ubbi nit wala yooyu ñun doy ñu ngont daal parce que xam nañ sunguf macha allah xam nañ ñi ngi koy wutee ci àll bi ñun xam-xam daf ñoo jaral lu nekk heure bu nekk laay dugg ci àll bi bàyyi samay nelaw xam nga macha allah daal ñun sant yàlla daal si benn côté macha allah daal. très bien très bien alors ñu bëri di wax ni léeg-léeg ay gàllankoor bokk na ci li koy waral léeg-léeg ñu liggéey la léeg-léeg tamit mu nekk ay gàllankoor yoo xam ni xëy na yeneen a koy waral ci nit ki li ci ëpp solo lii dindi gàllankoor mooy li ñuy wax toj liggéey maanaam yàq liggéey yu demee noonu Cheikh naka ngay deferee ki nga xamee ni moom liggéey dafa nekk ci yaramam mu bëgg. waaw yaa ngi doon tudd luy dindi gàllankoor gis nga liggéey rek du gàllankoor cat day gàllankoor aadama am na tur yoo xam boo ko arrêté gis ne kii cat moo yàq àddunaam am na tur yoo xam boo ko adatoon xool kii am ak tur yaam yi dañuy xam ne kii jinnee yàq àddunaam am na tur yoo xam boo ko la kii rabu cosaan mooy yàq àddunaam am na kii yoo xamante nee naa nangam nangam nangam nangam nangam ak gis nga xam-xam boobu yàlla dafa ma koo may su ma la gën sama téléphone bi ay seet yoo xamante ne ni nangam nga ne kii xanaa dafa ma xam fekk xaw ma la xam-xam la rek nit koo gis dafa am tur am santam bi mu juddoo dañ koo tuddee aw tur aku sant rayal ko am xar xar moom sacrifice la yow boo tuddee exemple Moodu Moustapha exemple wala nga tudd Fatou Diop nga dox ci mbedd am ko loo xam ne la Fatou yee da ngay gestu yow xamoo lu la gestu parce que da tudd noonu comprendre léegi tur yooyu dafa am ay rawxaan yi si nekk soo bëggoon liggéey ki liggéey bu bon tur yooyu ngay jàpp turam ak dëggantaan nangam ak nangam nga def ko lu bon exemple xam nga loolu macha allah yàlla may nañu ci xam-xam boobu nit ki bu ko bëggoon a taal xam turam santam loolu dañu ñu am ngont macha allah xam nga ak yeneen ak yeneen yi ci nekk xam nga doomu aadama dafa yéeme daal macha allah daal waaw mhm. waaw Euh, toj liggéey lii di ñu kort la dañ koy dindi am na sunguf yoo xamante ne juróom-ñaari garab yu dee laa ko liggéeyee ak yeneen garab yi sa aaje waaye garab yu dee yi gis nga man xam-xam dafa ma jaral lu nekk dem uti ko ci àll bi xam nga am na yenn muy àndal yu ñu ko composé it ci biir danga koy suuroo te boo koy suuroo doo ko suuroo ci ci ci ci ci ci ci néeg wala ci saal parce que sinon rek gàllaaj gu mu fa fekk daf koy toj mm-hmm. waaw boo koy suuroo it doo takk jaaro doo takk ndomba da nga koy suuroo ci kaw terrasse wala nga suuroo ko ci ci ci ci ci ci ci ci douche loolu nag day dindi cat day dindi liggéey bu bon day dindi korte lu bon lu mu fekk seram da koy dindi loolu moom xam bu sunguf bu wér te lu amul sax ma dem te ñëw ñun fii xam-xamu baatin moo fi nekk te tappale wu ñu naxaate wu ñu xam nga xam nañ bu baax li ñu wax te xam-xam la macha allah ñi ñu ci jëflanteel it xam nañ bu baax li ñu wax macha allah daal ñun moom dara jaaxaluñu waaw macha allah daal waaw. Euh, euh, alors Cheikh Konte numéro téléphone am di 78 398 65 93 yaa ngi koy wax ci say biir wax ñu bari aussi jàpp nañu ni gàllankoor yu bari rab wala cat moo koy euh, moo koy indi ci dindi nit ki ñenn ñi di wax ni ñaar yooyu daal dañoo jafee saafara ci nit ki ndax loolu mën nga ñu si indi ci ay leeral loolu doyu ngont moo gën a tuuti moo xam

comme que ñun moom ñëpp dañuy xam nga boo génn ñëpp lay xam ak yooyu macha allah xam nga ma ne ko yow cat gàllankooru la da nga foog ne cat la fekk du cat nangam ak nangam ba li muy gént sax di ko wax barki si dina Mouhamed macha allah daal sant yàlla xam nga sant yàlla su ma la génneel audio mi audio mi sax yàggut avant ngeen a ñëw la yàggut xam nga ñun xam nga yàlla daf ñu may daal macha allah waaye gàllankoor daal boo ko tënkee lu mu ci mën ci doon ku ñëw dina la jariñ ci kàttan yàlla ci xam-xam tappale wu ñu naxaate wu ñu arnaqué wu ñu waaw macha allah daal cat ak liggéey ak rab bu bon ak jinneeg lu mu ci mënt doon dañ la koy géreel nga am jàmm ak salaam macha allah am na ñoo xamante ne nelawatuñu nelaw nelawatuñu guddi am na ñoo xamante ne nii xam nga tiitaange buñ tëddee sax duñu taal làmp euh, pardon dañuy duñu fay làmp dañ koy taal xam nga damay bañ a wax ay secret yi nga xamante ni affaire u jinne la ak u rab xam nga yenn sëriñ di ko capté di ko kii ak yooyu parce que man xam di ko def discours di ko loolu laay bañ des fois di ko wax ak yooyu waaye fii xam-xam moo fi nekk moo tax macha allah buñ la seetalee da ngay yéemu daal moo tax yenn duñ ko bëgg di yenn sëkk di ko gars yi di ko jël ko def ay ay discours ak seen i waxtaan ak yooyu moo tax waaw mais lu mu ci mënti doon ku ñëw daal dinañ la jariñ ci kàttan yàlla nga feebar bëgg a fajoog feebar bu la jaaxal nee naa la lu hôpital mënul faj dama koy faj ba mu wér pelek pelek pelek pelek pelek lu hôpital mënul faj nag laa wax ba xam nga lu baree baree baree bare biir biy metteeg xam nga ngelaw seytaaneek bari na daal xam naa buñ doxalee rek ñu gën a yaatal incha allah ñu gën a yaatal incha allah très bien leneen loo xam ne ñu bari ci góor ñi léeg-léeg tamit rawatina euh, ci seen dundin dañoon koy faral di soxla ki nga xamee ne dafa nekkee li tubaab di wax impuissance sexuelle maanaam xëy na jëflanteem ci mbirum euh, lu jëm ci mbiru soxnaam mag yooyu dooleem dafa des ndax kooku mën na yaakaar ni bu jëflanteeg Cheikh suñu borom teggil ko wala moom euh, wàllu impuissance faj naa ci koo xamante ni 2012 xaw ma 2013 la ko loolu ba tey bañ ko mayee soxna yàgg naa koo wax barki Seydina Mouhamed wallahi lazim duy caaxaan ak waxtu bi bu fekkee lu ay fen la yàlla bu ma àggali émission bi man goo may tappale goo may naxaate kooku 2012 xaw ma 13 la ko loolu daloon kooku nag xam naa li ko ko tegoon nag yooyu comprendre nga su ma ko rusutoon wala kii mas naa teg émission euh, audioom si benn émission xaaya xam nga rek après xam nga rek ñëpp ay rusaange la ak yooyu si ñoom comprendre nga dëkk mi ngi dëkk Louga ñi ma yàgg a suivre xam nañ bu baax li may wax kooku maanaam da doon fawee awraam ba tële yàlla dimbali ko bi mu ko mayee soxna tëliwut nag yéntale maanaam da danaan jub saa yu waree séq euh, soxnaam rek awra bi day wàcc comprendre nga ñi may ko soxna 2012 xaw ma 2013 ba tey loolu mi ngi ko dal barki si dama xoolal loolu ñaata at la lu mat xaw ma 12 ans la xaw ma yooyu xam nga kooku nag xam na bu baax xam nga macha allah daal xam naa boobu xam nga xam naa xam man su ma kii wutoon damay teg audio mi ñu dégg dañ ma aaye yenn yi léeg-léeg rek moo tax bëggatuma kii si yenn affaire yeeg yooyu mm. waaye nit ku tële mm. nit kuy gaaw a daanu nit ki nga xamante ni awraam bu jógee day wàccaat nit koo xamante ni bu sëyee ba pare pour awraam jugaat sëyaat day nekkaat problème dootu mënati dara yooyu yëpp dama koy eh, faj ba mu wér peleg peleg peleg peleg peleg peleg te ay du ma la jox garab yoo xamante ni da nga koy naan sa bopp di metti wala da koy naan tey toog 30 minutes doog a sëy ma noonu du jox garab yoo xamante ni da nga naan sa biir bi di metti du ma la jox garabam da koy naan sa bët di xong cur man dama lay faj ci ay produits yu naturel ilmu sajara produit yoo xamante ni euh, ay xam-xam yu sell yu mucc ayib lañ ko liggéeyee à base des plantes médicinales la ñun suñu emballage yu ñuy defee suñu garab ay millions lañ ci fay graphique amul ñun suñu produit amul effet secondaire jàgg nañ ko jaay dépp bi ñuy nekk Touba ba nii di ko yóbbu ay Dubaay suñu emballage ay millions lañ ci fay du ma di ko wax parce que xam-xam la ñu am ñu gëm ko dem fay yóbbu ko Dubaay ñu defar ay étiquette emballage si suñuy produit ay millions yu du jeex ñu indiwaat ko ñu mën koo paqueter pour jox ko doomu aadama parce que xam-xam bi si nekk dañ ko wóolu gëm ko moo tax léegi nag li ñu jëlee si askan bi dañu ko defaat ci liggéey pour macha allah gën a taral suñu liggéey moo tax xam nga mi ngi noonu daal macha allah daal. très bien muy lu am solo borom produit yu baax yi buñ ko tuddee xel yëpp ci moom lay dem am na koo xam ne moom xëy na li mu nekkee du impuissance sexuelle waaye xëy na li mu am ci sàkkara daf ko doyul maanaam euh, sàkkara boo xam ne xëy na dafa ndaw mu bëgg ko yokku ndax kooku mën na yaakaar ne bu si jëflanteeg yow soo. loolu mooy yokk awra ndeysaan ñu bari si loolu la ñu xam lii di yokk awra euh, awra góor yokk wala ay fes crème fess ans bi maye wang hips di yokk fess ak ans ak yëpp xam nga ay wàññi biir yëpp si loolu la ñu xamee xam nga macha allah ay garabu kàttan gaaw daanu xam nga macha allah waaye yokk awra dañ naan ñu bari naan yokk awra amut waaye ay tappale la man boo duggee sama Instagram nga def Cheikh produit l'officiel sama Instagram dama fa gis ay témoignages yoo xam ne xaajul jeexul ci ay produits yu may jaay garab yu may jaay ay hémorroïdes ndoxu cité yëpp ay wàññi biir xam nga ay gaaw a daanu xam nga yokk awra macha allah ay témoignages xaajul jeexul partout dans le monde muudu muudu yeeg sénégalais yeeg mauritanien yeeg gambien yi loolu moom xaajul jeexul moom bu dee yokk awra rek ñu bari dañuy yor ay bant naan dama lay yokkal awraak yaay xool booy choisir rek loolu arnaque la arnaque la man maa leen wax loolu duma yàgg naa ko wax man dawuma daayuma produit yàgg naa ko jaay di ko yóbbu fépp ci àdduna bi man awma garde corps su may génn man sama oto man rek may dawal ànd su ma neexee wala ma am envie ànd ak ñi may liggéeyal ñi may jàppale man am naa équipe yoo xam dañ may jàppale ci liggéey ñu ngi ci boutique bi macha allah comprendre nga loolu nag xam nga xam-xam la boo xamante ne nii yàlla moo ma ko may te yàgg nañ ci euh, loolu daanaa ko jaay Touba di ko ambulant daan ko jaay ci naaj muy dem bay ruy xoolal léegi saa maa ngi toog sama kër macha allah kilim di ma ëpp ma toog si ay photo yoo xam 7 millions lañ ko jëndee kon kan moo daan ki doon ambulant ay kii di ko jaayil nangam ak nangam toog ay photo yu 7 millions xam nga loolu xam-xam bu fa nekkut xam nga doo yàgg fenn ñun tappale nag dañ see nekkut xam-xam la ñu yor yu wér te wóor yàlla moo ñu may xam-xamu sunguf xam-xamu reen xam-xamu jat xam-xamu lasraar xam-xamu ilmul nujum ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu dañ ciy sant yàlla bu baax te suñu aas demeewut noonu bu ñu nangoo jël yenn produit di ko yóbbu ba ay Dubaay di ko jaay ay naar te xam ne naar moo gën a compliqué la yàlla bind hmm. kon kooku yaakaar naa yor ci lu ñuy tappalee macha allah daal xam nga ku mi ngi noonu daal macha allah bu dee yokk awra nga bëgg hmm. sa awra nu mu toll am ñoo xam ne amuñu problème awra bu tuuti waaye dañ ko bëgg a yokk rek ngir gën a bégal seen soxnaak yooyu hmm. waaye ku ci mënti doon macha allah dama lay jaay produit bi nga utiliser ko te lu ñu naturel la ak ay plante ak ay jat yu da ngay diw matin midi soir rek kese boo ko utilisé une semaine ngay commencé gis ay résultats man sama garab yëpp produit yëpp une semaine ngay commencé gis ay résultats loo gën a continuer nga gën a gis ay résultats na ay te euh, euh, nga jël garab bi exemple tey joxaat ay ngay jël ay rendez-vous rendez-vous loolu façon arnaque la tey gars yi ba sëriñ su dañ koy def waxuma nag ñëpp bëgguma tooñ ay jox la garab tey jëlaat rendez-vous boo jaatee rendez-vous da ngay fayaat boo jëlaat demaatee utiliser garab jëlaat rendez-vous nga daal di fayaat loolu façon arnaque la façon arnaque la arnaque bu silwise la man nag doxuma si yooyu su ma la jaayee garab dama lay jaay une semaine nga commencé gis résultat nga gën a continuer nga gën a gis résultat témoignage yi boo leen duggee sama Instagram xaajul jeexul gis nga fii buñ la jaayee garab une semaine ngay commencé gis ay résultat nga gën a continuer ngay gën a gis ay résultat gis nga lu hôpital mënul faj dama koy faj ba mu wér pelek AVC ak tension ak diabète ak bëñ buy metti bopp buy metti ngelawu seytaane macha allah tànk yu métti ba munoo dox at yoo manti am dama la koy faj ba nga wér pelek pelek pelek pelek tension xam nga tension bu wàccee benn côté xam nga loolu mooy dem ba indi AVC yooyu yooyu yëpp dama koy faj ba nga dox sànni say beekee nga dox correct nga dem sa yoon. du ko faj nag si bis du ko ay plante produit à base des plantes médicinales la ci àll bii laa koy liggéeyee composé ak xam-xamam yàlla moo ma ko may lu tubaab mënul faj dama koy faj lu hôpital mënul faj dama koy faj ba mu wér ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te du yàgg lool. waaw